ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci li nga xam ne mooy ànd bi ak seen seen préféré Aladji Malick TV nekk na mbégte bu am solo ci ñun nekk mbégte tamit ci yéen ñi nga xam ne yéen a bàyyi xel yéen ñi nga xam ni yéen abone waxuñu ak yéen wala yéen ñi abone bu pare ñi nga xam ne aboneegul gul lañ leen di sant mooy bu ngeen duggee ci pass bi rek ngeen laal seen abonnement toog di xaar vidéo yi nga xam ni vidéo yu dëgg rek ko lal dëgg mooy Sadio Mané léegi la def entraînement fële nga xam ne mooy Orléans ànd ak joueurs yi nga xam ni wala footballkat yi nga xam ni ñoom ñëpp ñoo yebbeeku ci àdduna bi wala ngal kàpp daje foofe nga xam ni war nañ faa football samdi match boo xam ne match capital la seen digganteeg bëlub yi mu nekk match boo xam ni bu am solo la ci li nga xam ni mooy préparation yi nga xam ne Sénégal war na koo def war koo def ak Iran it nga xam ni tàggatu yooyu ñu bari ñu ngi dugg ci commentaire di wax ni Sénégal war naa mën a dajeek yu mag waaye loolee méngoowut ak li nga xam ni moo nekk enjeu yi nga xam ne Sénégal war na ci dëgmal ndax boo xoolee Sénégal ñi muy fokkal pool di ko football ak ñoom ñooñee seen football ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jël def ko match amical méngoo nan bu baax a baax ndax boo xoolee Iran xool équipe bi nga xam ni ah, moo nekk Bolivie seen football xaw naa méngoo Iran ak ki nga xam ne mooy Qatar mu nekk loo xam ne bu ngeen gëstoo bu baax a baax te xam football kon def ak ñoom mat sa entraînement dana tax nga war a mën a càmbar ñi nga xam ni ñoo nekk gone yi euh, gone yi nga xam ne ñoo nekk ca Qatar ba bu nu dajee ñoom match yooyee mën a nekk match yu xaw a yomb ci ñun waaye bu fekkee da nga bëgg a dajee Qatar euh, dem laaj équipe bi nga xam ni mooy France loolee bokku man bokkul gis-gis ak li nga xam ne moom la Aliou Cissé yor ak ñi nga xam ni ñooy directeur technique bi Sadio Mané mi ngi woon ci biir sa mboxloo bi ngeen gis ko noonu ca stade ba roq yu saw sawaan yi tamit andil nañ leen ko Fodé Ballo-Touré nga xam ni euh, càmmañ ba fi mu toll ni daanaka da cee am place euh, digg ba tamit Nampalys Mendy moo toog noonu euh, tàllal loxo yi ki nga xam ne moo war a taxaw ci camp yi bu ànd dogalu borom bi moo nekk Seny Dieng ngeen gis ko noonu mu sol mbooyam bu mboq mooy équipe nationale taxaw noonu wala boog mu toog ci li nga xam ni mooy remplaçant yi mu mel ni noppalu bu baax a baax moom la ko Aliou Cissé bëgg mu def ko ndax bu boobaa sunu àggee ca match ba dana mën a am uh, jëf joo xam ne ju am solo la joo xam ni war na koo mën a yebbi ci biir équipe nationale bi nga xam ni uh, waneegu ca boppam keneen ko fa nekkoon tamit uh, ci biir di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng mi nga xam ne Aliou Cissé da ko mayaat confiance may ko confiance it mu bokk ci li nga xam ni mooy groupe bi nga xam ne ñoo war a daje ak bulu bi samedi Koulibaly tamit ngeen gis ko noonu tamit mooy sunu njool mu digg doomu mi nga xam ni moo war a ne ca axe ba axe boobee nga xam ni bu soobee yàlla ah, kenn du ko ca dindi ci kàttanu suñu borom war na caa taxaw taxawaay boo xam ni ah, bu ko ñëpp xamale muy fulla ak fayda ak taxawaay gaynde njaay goo xam ni andi na ko ci entraînement bi mu war a belli nag ba ca samedi googee nga xam ni moom lañ war a daje kon ah, ki nga xam ni mooy Koulibaly lépp a ngi tolloo ci ay tànkam yoo xam ni jàppoon na ni ay jamono nagamoon na nagam googee nag eh, fi mu toll nii nàggamtiku na dañ na set wicc fi mu toll nii eh, kon loole dina am solo bu baax a baax keneen Papa Gueye eh, mi ngi woon ci biir li nga xam ne mooy tàggatu Pape Matar saarit it ma nga woon ca biir nga xam ni daanaka tàggatu na moom it tàggatu goo xam ni bari na image yoo xam ne daanaka image yu nu waa fédération nëbbu la ndax image yi di ay photo yoo xam ni dañ ñu koy yónnee Euh, loolee di lu am solo bu baax a baax di euh, jàppandal li nga xam ni mooy liggéey bi nga xam ni fii la ñu toog ci Sénégal ñoom ña toog ca France euh, dinu ko jox loolee tamit am na solo Sadio maane moo nekk noonu ñu nar a mujjee ki nga xam ne nag moo nekk Koulibaly Moustapha Namit gis nañ ko fa moomit nga xam ni daanaka Coupe d'Afrique bu ngeen xoolee Euh, bu fekkee futbal na match bariwul bëriwul wala boog footballu ca euh, benn match moom it euh, nekkoon ci ginnaaw gaynde yi di leen encouragé bu baax a baax taxawu leen taxawaay bu am solo nga xam ne loole lépp mooy group group ñëpp danoo war a bokk benn bokk ay bëgg-bëgg àndandoo bu ko defee lépp mën a jaar ci yoon li jaar ci yoon mooy Koulibaly mi nga xam ni boo amul chance ci match boobee capitaine bi mën naa rogalaatu ba ci moom loolee nanu yónni yàgg Koulibaly ñu ngi koy jox ndaje di jox ñëpp ndaje nag samedi bépp information bu fi war a jaar dala leen ko yëg